waaw a ñi ngi jaajëfal Dieng Sala ñoom ñëpp macha allah ñi ngi seetaan li nga xam ne mooy topp kaa Badara ñu hmm. dundaal li nga xamante ni moom moo di birthday euh, bi nga xamante ne macha allah soxna ay dara moom bu hmm. Wally Ballago Seck euh, moom madame Seck daal dina koy defal ki nga xamante ni moo di borom këram mu nekk anniversaire surprise anniversaire royal mu daal di invité fan su soppe xarit am du jàmm képp ku laale wala nga takke ci Wally Ballago Seck soxna ay dara defal leen fet bu macha allah fête bu royal yaa nga woon ca fête ba maa ngi woon ca fête yàlla hmm. Euh, muy lu nice lu rafet lu am solo. Mhm. Euh, ñëpp ñëw sol tout blanc. Euh, may nuyu président Waly Balago Seck mhm. Mar Yacine may sa biiga Mar le superstar le ndëmba wan le centre du peuple le choix du peuple. Ah. di ko nuyu di ñuy tamit grand Ndiaga. Mhm. ménageur bi. ah di nuyu Omoro. Mm-hmm. ak ñoo ñëpp ñoom mbay si ak Benjamin di ci profité di waxaale Benjamin. Mm-hmm. dafay woote dafa woote le 10 ci aset esat euh, fii arena bi. Mm-hmm. le 10 euh, le 10 mai non le 10 mai le jàll nga avril. le 10 mai incha allah bi di ci sargal balaa ko sekk ak mbay si magam le 10. Euh, ci esat bi. kon xam nga ne kooku osé na. Mhm. Benjamin mooy borom clavier bu neex bi ah, rek Fallou Benjamin ndeysaan mhm. le 10 may wax ne euh, soxna ay dara yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax dafa boole patak organisé. Mhm. jekku jamono nga mën ko lool. ba pare euh, suufe yor ji koy taalibe yor ji koy sang mel ni sunu yaay jaaga yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana kenn mosu ko gis ci réseau mhm. kenn mosu ko gis mu wax naka su du noonu lu dul def di def lu baax di wax lu baax kon ñooñu ay référence nan ay royukaay nan mhm. te du koo jekku lool nag dafa jekku àdduna lool sama genre gi ñoo jekku dara ba pare bëgg a solal nit ñi mhm. kon yàlla na ko yàlla defal jàmm moo Mar Yaasin mbooleem barke bu yàlla wàcce woon ci maam Aadama ak Awa yàlla na ko yàlla wàcce ci ñoom ci ñoom ñooñu barka alxuraanu karim mm-hmm. di wax ne keroog am na solo lool nag mm-hmm. euh, anniversaire bi neex na lool sax mm-hmm. trop ba ba jéggi doyee euh, ngóone taal ma nga foon ngóone njole taal njole taal ma nga foon man xam nga moom ay daaneel te ñëpp dañoo waxoon <coughs> njole ak yàlla tere c'est la ay njole taal ak bay si ak ñun ñëpp c'est la famille Babacar Bongo Babacar Bongo moo ko way mm. Thiat Seck ma nga foon waaw caat sekk caat léegi tuddee na waali doom. tuddee na xam na ne erreur la woon rek. Mhm. mais kenn dootu ko jaxaseeg waali balaa waali balaa ko sekk. kenn dootu ko jaaw loolee nit boo defee erreur ko merci beaucoup da koy da nga koy nangu. macha allah noo nekku fa. man kay dëgg rek laa lay wax. léegi nag Adamo daa daa yónnee ndawtal gu fort. yónnee na 500000. macha allah jox ko tamit ak Malick Naar yónnee nañ ndawtal. non Amina Poté ak Malick Naar ñooñu damay wax ne dañ gën a Euh, dëgëraatal seen diggante ak Wally xam nga li tax mhm. man damaa dem gine mais Wally bi muy way mhm. way na Amina Poté way way Malick Naar te nekkuñu fa mhm. vogu ñetti fan yépp way na leen Amina Poté Malick Naar macha allah euh, kon Wally dafa gore te it man li tax li ma gën a remarqué mooy gis nga keroog ci anniversaire bi bi Wally waxee ba pare dafa jug jël kol gim gim gim gim làngu woon takkal ko ëmmadi Amady di jooy. Mhm. est-ce que xam nga ne Wally il est très reconnaissant. Mhm. Mhm. deuxièmement moo doon gërëm Amady. moo doon gërëm Amady. deuxièmement mu ne bi ñu ko joxee benn yére bu rafet mu ne yére bi xam naa ne ñi ko bëgg bëri nañ mais kenn rek ko sañ a nangu ci man muy Amady. ko kon ku gore la deuxièmement mës na toog benn interview Wally Ballago Seck ñu koy laaj mu ne leen ki fi dàq fecc ci réew mi Armand la kooku. de euh, dafa dafa am kóllëre. Mhm. Mhm. Waly dafa xam démbam. macha allah ni mu téye ni mu téye awa bànneyaa mhm. téye ko Ndeye Ndiaye téye ko njàpp. yàqulu ko dara. ci ay nitu démbam. xam na ni ñii ay ñooy. xam mu jaar tey euh, euh, ki nga xam ne moo di Eumeudi. dëgg la parce que Wally bu woyee c'est grâce à Eumeudi. dëgg la Eumeudi moo ko jëlee bitim réew na ko kaay na loolu nag. kon xam tey jii ki la defal loolu ngóone. Mm-hmm. ak tey jii ak loo munti am ala ko fàtte. xam na xam xam na loolu xaritoo jiitu. Mm-hmm. Mm-hmm. avant lii. ndeysaan ñaar ba ñuy xaritoo yàgg na boobu ma dégg ca Papa Thion. dëgg la euh, macha allah Wally Seck a ngi ca Italie. nekk ci football beeg yooyu. macha allah kon lii dafa yàgg. mooy li ma lay wax nañu bàyyi nit ñi di jël ay yu ñaaw yoo xam ne dañ koy duggal ci foo xam ne hmm. xaju fa te bëj ak làmmiñ sax ñoo dëkk dëgg la ndax waale dafa bëgg ëmati ci hmm. biir xolam hmm. ëmati tamit dafa bëgg waale ci biir rek gis nga bu raxee rek ñett ak ñent bu ñu ñëwee la waaye waale na continuer rek Sénégal ñaar ñuy ànd la ñuy bañ sa ko da cee seet man laa bëgg fulla ak fayda am xool ñi nga xam ne ñooy saw katulaal mu teg leen nank de côté ba pare daal li muy dox daal segg de. di àndal daa xool ñi mu invité grande dame la. Mm-hmm. soxna daa xool ñi mu invité soxna c'est une grande dame. femme de valeur la femme de valeur la nit ku mm-hmm. baax la. Mm-hmm. nit koo xam ne tey dafa soutenir borom këram. dafa jàppale borom këram. doo ko gis. da ngay day ñëw ci këram sax ba dem. waaw doo xam ne sax dafa xool di dégg lu ne xale jigéen ñi di ko tendance waaye moom lañ takk. wala wala moom lañ takk moom lañ teg ci place. tubaarkàlla macha allah moom bëgg. jigéen bu mu am personnalité bu am maanaa am classe. soxna. doo ko dégg du fa am de bruit. Mm-hmm. doo ko dégg ci wax yu ñàkk fay de même bu mm-hmm. dee jëkkëram dafa soirée sax mu ñëw soxna fi mu toog lay toog doo ko mhm. gis mu lambar lambari te bu ko neexoon mënoon na na nekk mu jóg mayee ji lambar lambar ko wal ne maa fi ne yaay jaagala soxna ni mhm. da dëgg la ama ne kooku jigéen bu am maanaa la bu ba mu daj xale xale bu fi dàqul dàqoo rafet na am na matériel elle est belle et gentille mhm. allah waaye jigéen bu soutenir borom këram la macha allah dañ koy ñaanal Wally Ballago Seck man de li ma koy wax Seck Maria Sy Maysa Biége fi ko teg rek noonu la foofu benn sawkatu lal ak benn xale buri bu la tendance wala wax bëgg a génn di wax xoolal léegi bi yaa ngi ciy tegu man da boo wàccee rek jàpp dama naan la wàcc nga <laughs> waaye boo ko tegee ci yoon dama naan la yaa ko teg ci yoon dëgg waaw ah. benn la benn sowkatu la. <laughs> benn xale sowkatu la dum la félicité <laughs> rek. dëgg la dëgg fu toll ni fu toll ko teg ci yoon bi. ay ñoom Pawlish Mbaye ak ñoom Mer ak ña Gedd ak ay ñoom Adama ak yooyu yëpp nii rek la koy teg jubal teg ko ci yoon man man bu ko tegee ci yoon rek sama xol bi day mel la galaat. non ngoone oh, parce que Wally Ballago Seck grand monsieur la. ngoone Adama dugg ci détails yi nga xam ne dañ ko ciy woo Adama bu defee erreur tamit mi ngi koy jéggalu parce que. Euh, xam na ne xam waaw mais waaw mais xam nga ne dafa juum xam nga ne dafa juum parce que tamit parce que tamit il faut le saluer parce que tamit <laughs> ci influenceur fii ci réew mi ci Sénégal ah. mennum Adamo laa fi xam mu yëkkati cinq cent mille jox ko waykatam ne ko lii cadeau anniversaire am ak valise su yére dafa yàgg bëgg waale kon loolu ñu ngi koy saluer baax baax te xam nañ dafa juum parce que def na ci vidéo wax na ko mm-hmm. jégalu na Amari jégalu ay Baye Sall jégalu Wally Ballago Seck jégalu Omaro ba Omaro jégal jégal ko mm-hmm. devant tout le monde kon mm-hmm. li soxla si wax sànq rek Amina ne maanaam bala ngeen mën a jàppan dëgg faw ngeen laalante. Mm-hmm. mais comme Waly euh, grand frère am la te démb dégg nga li mu ko wax nee na ko lu mën a xew léegi nanga nga réglé. Mm-hmm. tey Waly yàgg na ko wax baat boobu ndax Waly ba ñuy xamante ñoom ñaar ci 2STV la woon seen émission boobu Waly bi mu njëkkee bi mu taxaw dana ko na nga bàyyi saaga yi. bàyyil saaga yi kon waali même moo la ko yàgg wax ba tey mu di ko wax donc geste boobu rafet na trop am na solo te am naa yaakaar ne euh, dana jéggal nañ ko bu baax a baax parce que waali nangul nag ko mhm. ndax bu ko jéggal doon du ko dug ko nangul ndax moom mënta may lu waali amut mhm. waaw ndax mënta may waali lu waali amut te lam may lam may waali mhm. ñëpp xam na ne waali sax daanaka da koy joxewaat mais geste bi rek moo rafet Adamo mi ngi jéggalu waali te geste bi rafet na ñu ngi koy saluer bu baax a baax. boss de négri kapo bi rafet na. Mm. Sénégal ñëpp ko rafetlu wax dëgg yàlla waaye nag tooñ jéggalu. soxna Aïdara waaw jégg jéggalu jéggalu yu bëri yi mhm. tamit. bañ a tooñ koo gën. dëgg la mu ngi noonu a tooñ def ko soxna ay dara mooy euh, derrière a une grande dame. dëgg la soxna grande dame la macha allah mhm. na place mm. yi <laughs> xale yi côté bu ne coxot coxotee nañ ko soxna. waaw mm. bëgg loolu xale yi fu ne ruuxee fa soxna. Mm. li ngeen yëg ak li ngeen yëgul nag xale yi fu ne jaar nañ fa soxna mais soxna ni dégg rek moo tax xale la ñuy yem xoolal xam nga anniversaire bi amul benn ay soxna lañ influence masseuse bu soxna lañ takk soxna lañ teg ci place te nag moo ñëw toog toogaayu Mama Diaga mhm. macha allah. te li ngeen ci xamul soxna xay Aydara est-ce que xam ngeen lépp lu moom sekk daan def mhm. soxnaa ngi koy def ci suuf dëgg la képp ku moom i daan teral man xam na dama cee xam ay nit soxnaa ngi lay tëral ñi moom i daan fayeer ay appartement mhm. soxnaa ngi koy continuer di tax est-ce que Wally sax na loolu xam ngeen li ma leen wax loolooy lu baax loolooy lu baax royukaay la di ko wax mhm. ni ko fi mu teg tànkam fi mu teg tànkam foofu rek la parce que mhm. sa jëkkër boo ko defaralee sa bopp nga defaral ak sa njaboot boo ko yàqalee sa bopp nga yàqal yàq sa mhm. njaboot kon nag fi mu ko teg foofu rek la bu mu bu mu gëstu bu mu xof ndax Sénégal boo nooyee doo dem de ay kii du gëstu tamit dafa jog ba comme anniversaire royal comme ni ko Ngoné waxee soxna dafa segg ñi muy invité dafa tànn ñi muy invité ah li kii wax invité wul benn bojo bojo def def jongama def ah, sañ seen bu rafet na. Mm. Ah, sañ seen bu rafet ah, na lii ngi wax rek waaye laalagoo la def. daa def première mm. bu mën bu mën fa woon rek dëkk bi yëngu <laughs> rawatina lii leen di ñaanal yàlla bi nga xamante ne am na naka ni samedi 27 avril tombé woon ak li nga xamante ne rek moom moo di anniversaire Wally Ballago Seck mu daal di koy def 72 heures nga xamante ne moo ci Vogue euh, euh, Bada dañuy dem Vogue ki nga xam ne mm. mooy ticket law bi borom fecc bi nga xamante ne. Oh. avant koor gi ba léegi mooy def bëri. Mhm. démb tikkee yëngal na fa bada. toj ñëw na ànd ak euh, délégation bu am solo. Mhm. ndax gis naa ko.